Eh, Pastef coordinatrice Pastef Malika eh, département de Keur wa sama teewaay li waral fi tay comme d'habitude rek bok ci ben eh, rew bo xamantene bi ay sàcc ay woyou ay bandi ñoko géré. le premier capitaine des voyous et des bandits c'est Macky Sall le second moy ñi nga xamantene ku sacc suñu alal ñu jël nomé la benen poste ministre li ñu gëna metti gën ñu naxari Covid 19 di fa ñëw mu nekk benn ennemi boo xam ne c'était l'ennemi du monde entier ñun sénégalais yi sénégalaises yi ba ci sénégalais lambda bi nga xam ne day sax ambulant yëkkati na as tuutam jébbal ko président. président jël ko jébbal ko son beau frère. ñu yaakaar ne euh, Mansour Faye day gérer alal boobu ngir lan ngir intérêt Sénégal ngir intérêt jeunesse Sénégal ngir lan xeex ak ennemi boobu ñu doon wax ne. Covid 19 la ndekete booba temps restez chez vous nous on sort au dehors pour voler votre argent loolu moo fi nekkoon. à notre grand surprise tey jii euh, état bi xam nañ ne ñoo sàcc suñu alal mhm. autant que ñun suñuy doom di dégg ay milliards. Nous mhm. gis sait jii ay voyous yoo xam ne c'est des vauriens yore suñuy milliards di taxawaalu moo tax tey sénégalais yi génn tey jii marche bien. du marche politique ah. c'est les sénégalais et des sénégalaises et des ñoo xamante ne ñoo wàcc pour wane nag ne Macky Sall sàcc gi doy na xam nga dañ ne bu teelu lem bul guux da ngay mel si ci kaw. Ah, dafa am lu ma lay laajte ndax ñi ñëw ñëpp ci kenn wala ñoom seen mobil seen intérêt. fayuñu kenn fayuñu kenn ñun ay magum jëmm lañ. fayuñu kenn ay magum jëmm lañ nous avons plus de 60 ans jiital suñuy doom ñëw parce que lan la Sénégal moo ñu ñor ñor ñoruñu Sénégal moo ñu ñor Sénégal la ñu tax a ndax fii ñun ñëpp ñoo fi mat carte d'identité bi Macky Sall la yore ñun moom la ñu yore carte d'identité bi Marième Faye Sall la yore moom la ñu yore carte d'identité bi Mansour Faye yore moom la ñu yore deuxièmement bi ci nekk Macky Sall ci place bii la jëlee pouvoir bi mhm. fii la taxawoon mu ne non au troisième ah, mandat non aux candidatures de Ablaye Wade jeudi bi ñu déclaré candidature Ablaye Wade maire Gadoom la bokk. mu ne sénégalais yi wàcce leen ngeen xeex ndax Ablaye Wade dafa bëgg a sàcc dafa jalgati suñu constitution léegi nag moom mi doon xeex loolu moo ñu delloowaat foofu ça veut dire que moom moo nañu génne leen ñu xeex comme nag moom yaramam day xasan ñun nag daf ñu fee fekk ndax naar kenn du ko woo sa buubu ñun xeex fii la ñu xam ñun dañuy wokk bu bëggee ñu wokk rek ñu wokk ñun li ñuy mooy suñuy milliards ñi feebar ba a faju ñi amee jalis ñu ngi dee ñi amee cancer ñu ngi dee ñi amee tuberculose ñu ngi dee ñu ngi dégg ne kaso ba fi mu ne nii prison yi fees na ba nga xamante ne tuberculose yi mi ngi rey foofu nit ñi te ay doomu sénégalais ñoo fa nekk même bu doon sax étranger moo fa nekk am na droit suivre euh, sécurité étranger boobu ndax képp ku fi nekk tey Macky Sall moo la war a suivre sa état de santé moo la war a jox nga lekk moo la war a jox nga naan boo feebaree mu faj la mais moom ku ma amul ndey lay def ak ku ma am ndey kaso bii mu yéene suñu doom yi nag na fàttali ko ba muy daw di dem ca ndem si yàlla sa sëriñ Baara Mbàkke naan ko waxal ci ab Ablaye Wade ndax Ablaye Wade dafa maa bëgg a tëj ndax booba ragal na kaso mais doomu jàmbur yi mu tëj tey jii dañoo am yaay dañoo am pap te ñu naan ko nag gaar à moom gaar à moom moo ne woon du tëj journaliste te yéen ay journaliste ngeen Pape Alé ñaa mi ngi ci kaso bi Pape Alé ñaa am jom am fulla am fayda dereetu sénégalais askanu doomu sénégal daw ci moom ñu bëgg a sacrifier Pape Alé mais Pape Alé Niang du nekk agneau de état kon nag nañu def lu ne ba nga xam ne rek ne Pape Alé Niang nañuy dégg ci moom wér gu yaram ak jàmm ak salaam sinon sinon Macky Sall li mu bëgg dinañ ci dem ndax yaram bi day xasan merci infiniment li mooy Macky boo xamoon li lay li lay yoot di bàyyi li ngay yoot ñun doxuñu nelawuñu nelawaanuñu Sonko nag mayewul saraxewul leblewul nay leer ok point fa laa mën a département de Kër Matar man maay Serigne Saliou chargé des affaires extérieures du parti bon tey soo gisee ñu mobiliser nii dañoo bëgg a ñëw jëmmal li nga xamante ni mooy marche bi ak ndaje bi ndax ku ne xam na ni suñu milliards yi nga xam ne ñii biñ ñu tëjee ñi ngi ko doon sàcc dañ ñu ko war a leeralal ba nañ nañ nañ. milliards yi ñu

ndax sénégalais bi ñaar dërëmam daf ko contribuer juróomi dërëmam daf ko contribuer ñu contribuer ba seen dernière centime kon xaalis boobu normalement su génnee dafa war a nekk xaalis boo xamante ni ñëpp ci war a gis seen bopp mais il n'en est pas ñu tëj sénégalais yi jël seen xaalis di ko séddoo 1000 milliards te soo waxee ñu naan la 6 milliards rek moo ci nekk xaalis bi nga xamante ni moo leerul rek rekkee suñ 6 milliards te loolu yaakaar naa sénégalais bu ne war na koo mën a métitlu ba au fond du looloo tax ñun waa Kër Massar ñu mobiliser waa JPS waa Magi Pastef waa Mujib waa nom Monet bépp support boo xamante ni mu ngi biir Pastef tey ñu àndandoo ñëw ngir jooy suñu naqar ngir jooy suñu métit ndax tamit dañoo war a libérer suñ détenu politique yi dañoo war a def suñ libérer suñ détenu politique yi loolu mooy jooy bi nga xam ni moom la ñuy gën a jooy nag wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu